siiw du jàmmi borom maa xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo fent wax yu ñaaw tàmbalee muy benn ka bo xamanteni doxna ci diggante ki di directeur expert auto ñu dippee ko Pape Samba Badiane Pape Samba Badiane nak ñep xam nañu mooy directeur expert auto fan yi ñu génn nak dégg ngeen amna ay bis manam maanaam ak ki di Amadou Sall Amadou Sall nak suñ ko waxé xel yëpp day dem ci président de la République Macky Sall muy doom ci Macky Sall dañu am problème ba ñu jàppoon kii di Pape Samba Badiane yobbu ko foofu ci sûreté urbaine bi nek ci commissaire central pour ñu dégglu ko fa biñ ko fa dégglo nee nañu li doxone ci digganteem ak doomu Macky Sall bi ay mbirum oto la woon ba mu toll bañ ko xaymaa ci xaalis toll na ci ay milliards donte Amadou fan yi ñu génn dégg nañ ko dafa yor ay parking am moom dafa choisir beneen chemin pas choisir chemin Karim Wade Karim Wade papam da ko dugaloon ci gouvernement bi moom nag dafa préféré def ay business su boppam ginnaaw bu mu jàngee jógee États-Unis ba noppi business bi mu doon def nag da doon yëngatu ci wàllu oto dégg nañu am na fi ay parking ci dégg lañ ci am nag mais gisooguñu ay parking jaay oto ginnaaw loolu nag ne woon nañu kii di Pape Samba Badiane associé am la woon ñaar dañ doon liggéey ci wàllu oto ginnaaw loolu nag am na

kii di Pape Samba Badiane di directeur expert auto génn na def benn démenti suñu confrère yooyu nekk foofu ca L'As Quotidien nee na li wax dara amu ci nee na kii wax Amadou sal, di doomu Macky du collaborateur am tey du collaborateur am suba xamu ko sax benn yoon rek la par hasard xëy nak, Sénégal d'af am ñoo esprit maléfique lañ yor esprit bu bon maanaam Khalat xalaat bu ñaaw di ko teg ci deru nit nee suñu jàppee ni que li ñuy wax amna, na nañu jàpp ni dafa ni bu avorté waaye li wax digganteem mak Amadou Sall amul benn business boo xamante ni boole na leen du samay kàddu nag kii di Pape Samba Badiane di directeur expert auto moom moo ko wax nee na nag dina dem ba nga xamante ni am na ñoo xamante ni mën nañ jël seen loxo teg ko ci alxuraan waat ni que kii di pap Samba Badiane collaborateur u Amadou la moom moo ko wax nag du samay wax nee na comme Amadou xam nañu dafa bëgg ay oto te moom day yëngu ci oto moo tax ñu del euh, benn liaison def ko seen diggante waaye nag loolu ay kaddu Pape Samba Badiane la waaye ñi bëgg oto trop bare nañ fi Wally Seck bëgg na oto Daouda Mbow bëgg na oto mais ba tey jii defu ñu liaison entre Pape Samba Badiane ak euh, euh, kii di Wally Seck kii di Daouda Mbow ndaxte ñu bëgg oto la ñu de belles voitures lañu waaye moom lañ ko dégg waaye moom daal def na ay démenti ba liir ci xelu doomu aadama yi neen nañ jàpp daal lépp lu ñuy wax ni que amoon na bis bil demoon na sûreté urbaine dara amu ci da bi première information bi génnee mu doon bis bil boo xamante ne doxoon na ci diggante directeur expert auto Pape Samba Badiane ak ki di Amadou Sall di doomu président de la république manam ñu xayma ko ci lu tollu ci 17 milliards yo xamanteni peut-être daf ko ko triandé ay auto yu ko waron jox waye ki di Pape Samba Badiane di directeur expert auto weddina tuuma yoy ba mu set wecc nee na wax dara amu ci sécurité urbaine fofu ci commissariat central diggante ki di Amadou Sall ak Pape Samba Badiane dañuy dem fofu ci Mbacké suñu demee Mbacké nak dañuy dem quartier bobu ñu dippee Daaru Khoudoss quartier bobu ñu dippee Daaru Khoudoss nak xam leen police daf fa dem fekk ben appartement meublé bo xamanteni ni dañ fa fekk ñenti hommes mariés buñ ne ñeenti hommes mariés maanaam mooy ñeenti góor yoo xamante ni ñoom ñëpp dañoo am jabar ak ñeenti xale yu jigéen yoo xamante ni kenn ci ñoom amu ci jëkkër bañ fa eggee nag police tek na len loxo lutax police tek len loxo ndaxte dafa japp ni que prostitution lañ fa doon def manam cagatu jay sen bop ginnaw lol nak biñu ñu lexo ki nga xamanteni moy cerveau bi di Odia Odia nak soko ko tulam o la commencé santam jaala manam muy benn commerçant bi nek fofu ci Touba mom ni mu demee ci enquêteur yi néna mom mo jënd appartement meublé bi fofu mais bu mu jëndé appartement meublé bi mom mo fa nekkoon ak ay xaritam xaritam yoy nak kenn ki Emma Ban la tuddu mi ngi dëkk Pire bu len ko jawlé ak Mamadou Ndoye Ban ndaxte ki réparateur téléphone la fofu ci marché occas ak benen xaritam xaritam boo xamante mi ngi nek Kaolack ak benen xaritam bo xamanteni aussi Pire la dëkk encore ñom dal bañ leen fa fekke fek nañ fa ay préservatif yu bëri manam moy ay capote ak chanvre indien suñu ne chanvre indien nak manam moy yamba ginnaaw loolu nak police bu mu leen tegee loxo deglu na leen kenn ki biñ ko deglo muy Odia nee na appartement bi daf ko loué woon mais reconnaître nak préservatif yi mom moko momone mais lan la ko don doyee c'était juste pour se protéger par rapport ak relation sexuelle yo xamanteni ni ñu ko don am ak xalé yu jigen yoy manam dañ don sey xalé yu jigen yoy muy ñetti xalé yu jigen yo xamanteni ni xalé yu jigen fek nañ leen foofu ginnaaw nag aquele M ban maanaam di réparateur téléphone moom bi ñu ko waxee moom dafa weddi tuuma yi nee na loolu indiwu foofu waaye kii di xaritam bi nekk fële ca Kaolack moom bañ ko waxee dafa ne dafa ñëwoon ay funérailles maanaam dëj la fa ñëwoon mu guddee mu bëggoon fanaan ci appartement xaritam boobu xale yu jigéen yi tamit bañ leen dégloo ba noppi maanaam ñeenti xale yu jigéen lañu jàpp leen ni que ñetti xale yu jigéen yi ku ci nekk yaa ngi am 19 ans maanaam muy fukki ñeent kenn ki mi ngi am ñaar fukki at ak benn ak euh, keneen koo xamante ni mi ngi sant Mendy turam mi ngi commencé seebab nopp sant Mendy biñ attaqué police nee leen waa yamba bi ngeen yor nag lan nga weddi nañu nee nañ ñoom du ñu jëfandikoo drogue mais dañuy tox cigarette xale yu jigéen yooyu nag jàpp leen ay étudiante lañu étudiante yoo xamante ni ñu ngi toll ci 19 ans ak 21 ans en restauration la ñu nekk 19 ans en formation en restauration ñoom nag nee nañu dañ leen invité woon foofu pour màggal Touba moo taxoon depuis 3 jours ñu ngi woon foofu ca Mbàkke ah màggal Touba de la ñu wax te màggal jotagul ngeen dem di profito di tox seen yamba Serigne Touba de santu leen loolu franchement parler Serigne Touba bi muy sant màggalam yaakaar naa ne ay berde la fa santoon woon ay jaamu ay xasaayat ay tudd turu yàlla waaye yéen màggal jotagul ngeen dem foofu si seen appartement meublé yóbbaale seen yamba bu doy ak seen ay kappal yu doy ba pare ngeen naan màggal Touba je crois que xalif général des mourides war na jël ay décision ci loolu ñii tey ormalu ñu diine mouride ginnaaw loolu daal ba ñu demee ba ñu leen fa téye ñetti xale yu jigéen yooyu ñu ngi dëkk diggante géejawaay parcelle ak yëmbal maanaam seen quartier yi ñu dëkk géejawaay parcelle yëmbal invité nañ leen foofu nee nañu pour màggal Touba depuis trois jours ñu ngi fa ci appartement ba nag la leen police fekk bi leen fa police fekkee nag teg na leen loxo ñoom juróom-ñett ñëpp jamono ji ñu ngi foofu ca tribunal grande instance bu Diourbel jógee foofu ci mbacké dañuy dem feulé ci ngay Mekhe suñu démé ngay Ngaye nak dañ fay seeti ci ki di Mamadou ndjay Mamadou ndjay nak benn ancien militaire la manam mi ngi tollu ci ñaar fukki at ak juroom ñeent mu nekkoon ci bataillon blindé bi Thiès maanaam Mamadou ndjay nak euh, compagnie euh, douzième 12e euh, 2012 la won ginnaw Mamadou Ndiaye bu libéré deful dara créer ben compte Facebook tuddé bopam Rimo Touré mu est Touré nak def na émigré ci la nak di waxtan ak ay xalé yu jigen xalé yu jigen yu bari di len nax di len de bëgg daf len di tak daf di suñu ci mu commencé di len nan lañ ko ay vidéo obscène su ngeen déggé vidéo photo ay ancien militaire bobu nga xamantene dajale na vidéo am yoy yep dafa jëlone vidéo yi di menacer xale yu jigéen yi mais da fay teud ak ñom ku ci nangul teud ak mom ba jox ko xaalis day jël vidéo yi yónnee ko ben xale bo xamantene mi ngi fofu ci Allemagne di ben sénégalais bo xamantene phénomène la temps yi ràññee nañ ko mu yónnee leen ko pour ñu publier ko xale yi ginnaaw lolu bu ñu ragalee am na xale bu jigéen bo xamantene mi ngi dëkk Lompul keneen ki mi ngi dëkkon Tivaouane mais ki dëkk Lompul jotoon nako envoyer envoyé lu tollu ci juróom-ñaari junne muy 35000 francs ginnaaw bu mu ko ko yónnee mu continuer menace yooyu mais xale bu jigéen bi li ko ci jaaxal ki dëkk Guillaume Poul dafa xëy gis vidéo boobu émigré bi nekk euh, foofu ca Allemagne publier vidéo yi ginnaaw bu mu publier vidéo yi nag xale yi jigéen ñi dem porter plainte bi ñu porter plainte si la yoon teg loxo kii di ancien militaire boobu ñu dippee Mamadou Ndiaye créé Facebook boobu tudd Rimo Touré doon na xale yu jigéen yi di leen santage ci ay vidéo obscène jàppale ni ko jamono ji yoon teg na ko loxo kii di faux militaire boobu di Mamadou Ndiaye jébbalu yow yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu